askanu sunu Assalamu asalaamualeykum kullu environnementaliste wala écologiste du monde entier donc euh, mangi ngi am mbégte bu baax donc vraiment tay fasciné, yéene jàkkaarloog àdduna bi yëpp ngir waxtaan ak ñoom ndax jombul boobu ba légui amna ci ño xamante ni dégg nañ ni l'homme plastique fay def tour du Sénégal té da koo fas dox té kenn ku ci nekk tay yaa ngi xaar exactement lan mooy motif bi lan moo ko motiver ba mu war a dox tour du Sénégal ci loolu rek la ñu bëgg a indi rek ñetti pàcc rek ci li nga xamante ni moom moo waral ñu fas yéene dox def tour du Sénégal du mbir moo xamante ni dañ koy defloo ñëpp mais initiative personnelle la boo xamante ni jàpp nañ ni tey bokk na ci meilleure solution yi nga xamante nii dinañu permettre tey li nga xamante ni diirub ñaar fukki at ak ñett mbaalu këpp ñi ngi koy xeex ba tey ñu yor ko ci sunu loxo mu doon li gën li nga xamante nii réew yu bari tey ñu ngi koy wër amaguñ ko wala bëgg nañ ko te amaguñ ko ñun ñu yor ko ci sunu loxo muy loi bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñun ñëpp gis nañ ko coono bi nga xamante ni askanu sunu gaal te daj nañ ko ci li nga xamante ni liggéey nañ ko ci pendant des années bañ tey ñu am loi bi nga xamante ni mooy loi bi gën a mucc ayib ci loi yi ñu mës a gis yi tere plastique yëpp ci àdduna bi kon jàpp naa ni loolu tey ndam la fierté la aussi ci peuple Sénégal yëpp ñu war a mën a jóg accompagner luwaa bi nga xamante ni wax dëgg yàlla biñ ko voté ba léegi def na ñaari at te gisuñu benn yokkute wala benn changement boo xamante ni indi na ko te japp nañ ne tey fi mu sur la pollution plastique fi Sénégal toll ci wàllu mbalit kon tey jot askan wi tey wala kilifa yi nga xamante ni nañ ci bu mucc ayib ñu gindi askan wi wax leen li nga ni loi am décret d'application parce que li ñuy dund métti te jàpp nañ ni tey jii fi mu nekk nii depuis ñu commencé di wax loi bi en 2015 ba léegi ñi ngi wax ne mbëbës équivalence su mbëbës mi ngi toll ci 200 terrain de football imaginez tey ñi ngi ci 2022 sunu doom yi nga xamante ni dañu war a ñëw suba ak sunu sët yi ñooñu fan la ñu nar fekk mbëbës loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo tax ñuy jooyanti pour loi bi nga xamante ni voté nañ ko mu am décret d'application non seulement dinañu permettre tay aduna bi yépp xamni tay Senegal Sénégal taxaw na ci taxaway bo xamanteni ni fas na jog ngir dimbali askanam fas yéene na jog ngir dimbali samkat yi fas yéene na jog ngir dimbali napkat yi mais fas yéene na jog ngir dimbali baykat yi ndax liñuy produire ci plastique dul tol nonu lañuy recycler ndax ci lu ñeen fukki tonu mbalit ñu diko dajale at mu yalla jot te amul dara luñ ci recycler lu temer ak ñaat kon li ci des war nañu am jàngat xool loolu fan la war a dem ci géej gi lay dem wala ci àll bi lay dem wala dañ koy taal kon jàpp naa ni tey jii yu mel noonu tey bu xewee ci réew mi ñu yor loi bi nga xamante ni moo gën ci loi yi malgré li loi bi di dox yëpp am na ci ñoo xamante nii tey gënalu leen du lu leen neex mais nañu seet yàlla xool posen bi ñu dëkkee di ñu ko posone ñun ci suñu bopp mais posen bi nga xamante nii ñu ngi koy posone suuf si te suñuy doom wa ëllëg war a ñëw suñuy sët war a ñëw ëllëg te ñooñu amuñu sañ-sañ war a fay bor boo xamante ni lebuñu ko loolu bokk na ci li waral benn ci pàcc yi nga xamante ni moom moo tax ñu fas yéene jóge Pikine dox def tour du Sénégal beneen bi ci topp muy sensibilisation bi nga xamante ni moom moo war ci diggante état ak askan bi ba ñëpp mën a comprendre exactement loi bi ñu voté lan moo tax ñu voté ko ak fan lañ jëm ak Sénégal li tax ñu voté ko nag njëriñu ñëpp la parce que tey jàpp nañ ne tey jii képp koo xamante ni tey yaa ngi saw askan yaa indi musiba ëllëg parce que askan woowu tey bu ñu amee de la population ñëpp nekk ay ndaw ndaw ñooñu war nañoo nekk ndaw ñu dëgër ndaw ñoo xamante ndaw ñu am jom ndaw ñoo xamante ni ak benn depuis 1970 jusqu'à nos jours Sénégal un système rek la xam tonni turi taal tonni turi taal mu jot ñu dugg ci biir askan wi jàmmaarloo ak ñoon waxtaan ak ñoom kenn ku ci nekk ñu wax la ni la Sénégal terre plastique ndax lii la la mën a jural ci sa wàllu wér-gu-yaram mais lii la la war a mën a jural ci liggéey bi ngay liggéey ci sa environnement mais lii la la mën a jural tamit ci sàmm gi ngay sàmm loolu bokk na ci li feeñ ci géej gi nga xamante nii ñàkkum jën mi métti na mënuñu dëkk ci chaque année rek donc état bu Sénégal dem Guinée Bissau fay fa ay centaines de millions pour libérer ay prisonniers yoo xamante nii napp bëgg jën lu ñu yóbbul seen njaboot a tax ñu jàpp leen tëj leen ci kaso yi yor presque lu toll ci 700 kilomètres de côte kon japp nañ ne tey y une urgence te urgence boobu nag ñun ñëpp dañ ko war a partager liggéey la boo xamante ne nag état moom moo ko war a def jóg ñaax askan wi egg ci ñoom xamal leen ne leen plastique bi lii la leen mën a jural ci seen wàllu wér yaram mais lii ak lii lay mën a def loolu nag dem nañ ba gis ne tey jii état bi ko war a def priorité am nekkul environnement en ce moment te toll nañ ci niveau boo xamante ni xeetu pollution bi ci Dakar waxuma la ci Sénégal yëpp mais ci Dakar rek mi ngi commencé di jéggi dayoo usines yi ñi ngi gën a yokk mbalit mi mi ngi gën a bëri production bi mi ngi gën a bëri te lépp lu ñu dajale dañu koy jël rek tonni rek dem tuuri ko taal ko te jàpp naa ni loolu du solution ni nga xamante ni tey président def na ko ci juróom-ñetti at yu weesu yi ni ñu fexee ba tey tabax des bu ne ba tabax yeneen ak yeneen ak malgré liggéey bi bari na trop waroon nañ ba defar mbëbës mu doon centre euh, technique ma technique de dernière génération dinañu permettre ñu réduire euh, mbalit mi bu baax mais lu tonni rek dem tuuri ñu lakk ko dem ci gi luy bëgg mu jëriñ leen jëriñ ñu ba kenn ku ci nekk mën a jël sa matuwaay parce que réew moo xamante ni tey boo xoolee ni li fi feebar ci wàllum pollution de l'air li fi feebar ci wàllum asma li fi feebar ci yeneen i jàngoro yoo xamante ni yëpp plastique moo ko ëpp moo koy indi te 90 pour cent ci matière plastique yi nga xamante ni ñu ngi koy utiliser amul benn buñ ci mën a recycler fii biir Sénégal kon loolu tey jii bu loi bi amee décret d'application dinañu permettre tey vraiment ñu mën a réduire impact déchets plastiques yooyu ci sol bi mais ci biir géej gi wala ci li nga xamante ni dañ ko doon taal bés bu yàlla sàkk beneen bi ci topp muy pàcc bu mujj bi mooy li nga xamante ni moom mooy combat bi nga xamante ni mën nañ ko ñaar fukki at ak ñett nga nekk ko ci benn mbir tey bu ñu xoolee tey jii mouvement bi am engouement bi jeunesse Sénégal am ci sur la protection de l'environnement kon defet la ci man wax dëgg yàlla may reculer tay japp nañ ni tay ji lépp loo xamanteni ni ci wàllum communication la ci wàllum sensibilisation la liggéey nañ ko ba mu mat sëkk tey baas bii ci sunu ginnaaw tey mën na firnde lu leer loo xamanteni ni yëpp ay moyens de communication la kon tollatuñu foo xamante ni dañuy wax ne alternative bi lii la wala nangam la wala nangam la lépp loo xamanteni nii rek war na mën a dimbali doomu aadama bi ba mu mën a tàggoog plastique rek génne nañ ko teg nañ ko ci table bi li ci des nag mooy ñu am décret d'application bu ñuy permettre ñu mën a am Sénégal gu set wicc mais nag di ci profito ci dox boobu pour nemmeeku ñi nga xamante ni bés bu yàlla sàkk ñooy partager suñuy vidéo ñoom ñoo ñuy aimé di leen xamal ne doxuwuñu pour xaru doxuwuñu tamit pour wane ni ay star lañu waral leneen mais dafa am urgence te urgence boobu tey jii suñu kilifa yi doxuñu jëm ci te loolu la ñu bëgg a pour ñu dox jëm ci pour ñëpp xam ni mbuus posan la poson la ci man poson la ci yow poson la ci suuf si poson la ci géej gi kon ñun ñëpp war nañu àndandoo bu fekkente ni suñu kilifa yi jëluñu benn matuwaay pour jële fi loolu ndax benn groupe de personnes boo xamante ni ñoom ñoo taxawit di opposé wu pour mbuus mën a rester rester ci biir dëkk bi ma bëgg askan wi ñëpp xam ni tey jii groupe boobu seetuñu dara lu dul seeni intérêt personnel seetuñu dara lu dul seen koom-koom nu mu mën a yokkee seetuñu dara lu dul lu leen mën a jëmale kanam mais seetuñu tey jii sunu maam yi nga xamante ni tey jii pollution de l'air bi mi ngi leen di rey li nga xamante ni moom la ñuy dajale dakaar bés bu yàlla sàkk di ko yóbbu mbëbës di ko taal seetuñu population bi dëkk Kër Massar seetuñu population bi dëkk të Tëngéej ci xeetu tooke yi nga xamante ni dañoo dëkk di ko noyyi bés bu yàlla sàkk groupe de personnes boobu ñu tey jii mool yi nga xamante ni ñi ngi dee ci géej gi ndax ñàkkum jën ndax salte bu metti ci biir géej gi groupe de personnes qui tay été, tay ji bu tabaski joté sénégalais yi biñuy am pour am xaru tabaski Tayor groupe de personnes qui Sénégal intérêt rek ma dox def du Sénégal fas suba heures bu et demi buntu Pikine ak bu ñu jógee cees ñu ngi dem ba Saint-Louis fu ñu ci topp rek dinañ leen ko wax mais doxuñu ngir bëgg a doon star mais dañuy dox rek ngir wax askan wi tey jii poson bu baree baree bari mi ngi daw di jëm ci askan wi te poson boobu tey jii benn groupe de personnes ñoo ko fi indi te seen intérêt bopp rek moom moo leen tax a jóg pour askan wi ñëpp kenn ku ci nekk mën a bàyyi xel ci sa wér-gu-yaram mais bàyyi xel aussi ci wér gi yaramu ñi nga fi nar a ñi la nar a wuutu ëllëg ndax kenn ku ci nekk ci ñun na leer ni comme sa suba wóorul loo fiy def rek na doon lu leer kon lii ñuy def defuñu ko ngir bëgg siiw mais pour dimbali àdduna bi mais dimbali tamit askan wi mais dimbali tamit sunu doom yi nga xamante ne ni dañoo nar a fay bor bu ñu lebul te loolu ñun ñëpp yaakaar naa ne buñ ci bàyyee sunu waar dinañ ko wax lii nag biñ koy dox demuñu ci kenn di ko ñaan ndimbal sunu option bopp la sunu vision bopp la jàpp nañ ne tamit tey bu ko sunu autorités yi gisee mën na saafara lu baree bari jàpp nañ ne tey opportunité la tey état bu Sénégal jël ay matuwaayam sur la protection de l'environnement rawatina nag ci jamono ji nga xamante ni adduna bi yëpp dañuy wax ci problème mu réchauffement climatique kon nag ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allahu rabbi ci kanam tuuti rek ci marche bi incha allah jaajëf